mbokk internet sur Dakarnet ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbiri Cheikh ñas mu mel ni jeexagul ndax njaboot gi tey dañoo génn fële sa yëmbal def benn point de presse di leeral ci dese seen doom ji waaye ki nga xamante ni mi ngi tudd lamin Diop bokk ak moom fi nga xamante ni moom mooy cellule fële ca Cap Manuel ginnaaw bi ñu ko tegee loxo juróom-benn fan daal di koy jàllale foofu moom Cheikh ñas ci kàddu lamin nee na Cheikh daf doon ñàq moment bi mu toll di jàmbat naan moom foog mu jël ay garabam mu mel ni dafa am feebar boo xamante ni daf ko waroon a tax tout le temps dafa war a garder li nga xamante ni moom mooy ay garab yu mu waroon a jël waaye nee na ci kàddoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquêteurs yi faalewuñ ko nanguwuñ ko sax lijjanti seex di weñaaru fi mu toog ñàkk tooy xepp ci ginnaaw gi la jël ñetti mbuusi ndox daal di ko koy jébbal moom seex mu naan ko ginnaaw gi nag euh, la ñu ko euh, yóbbu fi nga xamante ni moom mooy hôpital mu daal di génn àddina euh, foofu nga xamante ni moom mooy hôpital Le Dantec waaye mbir mi nag mi ngi noonu di lu doy waar ndax sax nag mën nañoo topp ñenn ñi wala rawatina police yi ci maanaam nit ku nekk ci diggante dund ak dee wala nit ku nekk ay jafe-jafe di la ko wax nga bañ koo faale waaye nag loolu yëpp comme enquête bi waxagul dara duñ ci mën a sori waaye xam leen ni rek loolu la ki nga xamante ni moom la bokk bokkaloon cellule yëy yàbbi ci mbir mi nee na seex dafa feebar dañu ko nangul woon taxaw nanguwuñ ko woon faale looloo tax mu daal di génn àddina te nee na sax seex nag torturé wuñ ko benn yoon maanaam dóoruñu ko defuñu ko dara waaye feebar boobu noonu mu doon jàmbat ak médicament yi mu doon laaj nanguwuñ ko ko jox loolu moo ko tax mu daal di génn àddina weleen leen di abonné seen site d'information bi di Dakar Net dara du ci réew